di nuyu waa quartier bi di leen ziar di ñaan fépp fu xasida yi yegg ku ko dégg rek yàlla na sa fajug aajo ci barke borom Tuubaa ak xasida yi ndax xasida yi mën na ko di ziare bu baax a baax jëriñu liggéey bi sëriñ Ibrahima Jenn di ziar suñu yaa yaawali ndiir jëriñu soxna yi di ziar waa daara ji ñëpp di jaajëfal ñi daaneel légi muy waa kuréel 1 ak waa kuréel 2 bi njëkk a jàng di leen sant bu baax ci seen taxawaay ci liggéey bi di leen gën a soññ nañ ko daan defee rek di leen xamal ne liggéey bi buñ ko dee wax njàngum kuréel mi moo koy dooleel kon jamono bu nekk na ngeen bàyyi xel ne yéen yéenay liggéey bi ñu leen di ñaanal nag bu baax ndax xam nañ bu baax coono yi ngeen di daj ku ne xam na li ci njàngum kuréel ak i coonaam ak i jaayanteem ci sa jot ci sa alal ci lépp waaye nag sëriñ bi tax ngeen di liggéey gis na lépp ñu leen ci gën a ñaax di leen jaajëfal di ñaan suñu borom bu dëpp leen kàttan ak xéewal ba lépp lu ngeen yéene ci daara ji rek ngeen man ko barke borom Touba ginnaaw loolu it ñuy sant suñu jëwriñ sëñ Ibrahima mi nga xam ne tey jii moo aaye bis bi waaye nag di ci ñaanal waajuram bu góor xam naa bu joxee sëñ xaarim dina def joxe benn dog ñu def ko ñun ñëpp boole ko ak xasida yi ak alxuraan ji jàng yëpp ñaan suñu borom jotale ko ci yool bi ñu ngi siyaar sëñ Ibrahima bu baax di ko jaajëfal ci taxawaayam ci daara ji ndax ku ne xam na ne mbooloo mu mel ni jiite leen yombut ndax ñoo xam ne mën naa am lu ëpp ci liggéey bi sax ñoo la ci jiitu waaye nag ñu xool sab yar ak say teggin ak sa pësiyëf ak sa am fulla teg la ci suñ kanam kon loolu sëñ Ibrahima du lu ndaw ñu ngi lay ñaanal suñ borom mu defal la kàttan ba lépp loo xam ne daara ji am na ko yaakaar ci yow rek nga man ko kem ñu ko bëggee ci barke borom Tuubaa ak xasida yi di wax ne liggéey bi liggéey la boo xam ne dañ cee nekk rek waaye duñ ci dara lépp sëriñ bi la kon képp koo xam ne yaa ngi ci liggéey bi rek rafetal njort te xam ne boo ci jàppee dina baax ñu ngi ciy bu baax a baax ginnaaw loolu it ñuy nuyu suñu mbokk taalibe yi ñu fekk si ñuy waa daayira Mafatul Bisri nga xam ne sëñ Ibrahima de kenn ci ñoom waaye nag ñoom it ñu bokk ci liggéey bi donte egsee gunu ci ñoom ñu bokk ci liggéey bi ndax li ëpp ci waa daayira boobu waa bawal lañ te mbooloo mi mbooloom bawal la ndax dañ ne fédération Safinatoul Aman Touba Tundu bawal kon ñoom ci liggéey bi lañ bokk kon ñu leen di woo ci liggéey bi comme ni ko sëñ Ibrahima defee ak ñenn ku mel ni sëñ Ngañ ci daara jooju la bokk ñu leen ci woo di leen xamal ne liggéey bi du lenn du dul liggéeyal sëñ Touba rek dara génnu ci sëñ Touba xam ne nag ab murit nga dëkk ci goxu bawal googu rawatina làmbaay war ngaa góor góor lu baax ci liggéey Sëñ Tuubaa ndax ñun fa ñu sëriñ ba jële moo yéeme ku ne xam na la woon démb la xewoon kon bu ñu demee bay def ay jataay yu mel nii di ay doomi làmbaay war nañoo góor góorgóorlu lu baax ci liggéey bi kon waa Mafaatul Bisri ñi leen di tàllal loxo di leen wax ne liggéey bi soxla na leen ci bu baax a baax ndax xam nañ seen doxin xam nañ seen pëstéef comme ni ko sëñ Ibrahima defee ak sëñ Gañ ak ñu bari ci daara ji ñu ngi koy sàkku ci yéen ñëpp boole Mafaatihul Bichri gépp ñu ngi sàkku ci ñoom ñu ñëw ànd ak ñun liggéey bi ndax liggéey rek moo ko wunn mooy gis nañ boo xoolee tundu làmbaay dëkk yëpp am nañu ay daayira di doxal waaye nag am na loo xam ne benn daayira mënu ko ñaar daa ñaari daayira ñu fas yéene ñun ñëpp ànd nekk wenn say ba jëf jëf joo xam ne ku ñëw xam ne ñii di leen sëñ Tubaa jëfal xam nañ ko te tee nañ ko loolu rek moo yittey daara ji kon ñu ngi leen ci woo te am nañ ci yéen yaakaar bu baax a baax nag xam naa liggéey bi egsi woon na ci yéen waaye ni mu ñi ñu ko leerale tey mën naa am egsi woon ci yéen noonu kon ñu leen ciy woo bu baax a baax di wax ne lenn ci liggéey yi nga xam ne daara ji romb na ko ñu waajaloon ko waajalin yoo xam ne am nañ ci macha allah nañ ko bëggee woon lu mel ni ziar bi ñu génn liggéey yi day continuer projet yi day continuer te dafa bokk ci sarti carte de membre bi soo jëndee carte bi dafa bokk ci ay sartam mooy projet yi nga xam ne daara ji mu ngi koy doxal bépp projet bu daara ji taxawal di ko doxal nga def ci sa participation mhm. waaw mhm. kon ziar bi ñu génn benn la ci projet yi nga xam ne nii daa bokk ci projet yi daara ji ñu dëgmal nag beneen projet ndax liñ bëggoon mooy suñ génn ci ziar taxawal bisu xasida su génn ci bisu xasida continuer projet yi yàlla dogal na bureau bi nekk Dakar ak bi nekk Bawol daje woon nañ ginnaaw gàmm waxtaan waxtaan wu yaatu wu jëm ci liggéey bi ci lan la ñuy sumb ci loolu nag liñ juboo mooy gis nañ ne bisu xasida dina gàtt lool pour ñu taxawal ko ngir lan dafa am bis mag bu ñu wàcce làmbaay muy le premier janvier ñu koy defal suñu ñetti jàmbaar yi nga xam ne lépp luy lislaam ñoom la ci làmbaay muy sëñ Babacar Thiergane sëñ Mor Mané ba sëñ Aliou Diouf làmbaay bis boobu le premier janvier lay doon di nekk bis bu mag ñu xam ne diggante bi ak booba bis xaju fi bis booba it nañ ci war a taxawee ñun waa daara ji bu buñ ko taxawee dëgg-dëgg suñ ca génnee mënoo doxalaat ñaari weer di defaat bis nga ne kon bisu xasida moom mën nañ mën nañ ko tegandu ci suuf ñu xool beneen programme bu ñuy song léegi nag yàlla dafa dogal dafa am benn terrain bu mag bu ñu am ci làmbaay muy 50 sur 50 terrain bu taw féexe boo xam ne mën nañu sëriñ bi moo ñu ko fàggul ndax daayira juddu woon ci làmbaay ci ay année 2002 2003 ñoo ko daggoon bu yàgg ci booru jumaa ji mu ngi ci penk jumaa ji jëm ci yoonu tuguj bi terrain bu yaatu dem nañ fa keroog ba saytu ko terrain boobu daayira bi ko daggoon dañ koo daggoon ngir mu nekk daara ki seen liggéey yàlla dogal liggéey boobu dem ba ña ña ëpp ca mbokk mbokk yi ko taxawaloon ñu tasaaroo kenn ku nekk dem fen man ci laa bokkoon bi ñu gisee safanatu amaan nag muy dox doxin woo xam ne daanaka ñoom seen yéen a joojee la la bii jël jëwriñ yi daal daje jël terrain bi jébbal ko jëwriñu safanatu amaan muy terrain bu mucc ayib léegi nag daara ji dañoo taxaw ci terrain boobee ñu def fa dara donte tabax moom ku ne xam na ne dafa metti waaye nag dañuy tàmbali tàmbali bi nag liñ wax mooy xayma nañ liñ soxla ci ay birig ba tënk ko mu toll ci 13 tonnes bin xaymaa lépp loo xam ne moo koy def mu ngi toll ci un million huit cent un million huit cent boobu nag dañ ne ñun waa Daara dakaar façon na yéen a joxe un million bi bi ñu xoolee li ñu am ciy membre li ko manqué téeméer bëriwul ñu ne kon ngir mu woyof te dañuy tàmbali liggéey boobu bu jeexee dañuy sonk beneen nañ ko def mu woyof kenn ku nekk joxe ci ñaari junni dix mille francs bépp membre boo xam ne yaa ngi ci cellule bu dakaar ñaari junni la sas ci liggéey boobu kon information boobu moom la ñu indil tey buñ fi jógee ñëpp bàyyi ci xel laaj bi nag daa am fu muy tàmbalee am fu muy yem le premier octobre lañuy ñuy tàmbali liggéey bi ba le fin novembre ba le 30 ci fin novembre bi kon ku fi jóge boo demee nga def ko muy sa yitte ñaari junni nag bari na bariwul dañuy wax ne liggéey Sëñ tubaab bii képp ku ciy jëf da ngay jëf muy metti waaye doo ne rek yoraguma wala féexaguma déedéet ndax sëñ ba muy jëf dafa jëfan ci jëfin wu metti kon luñ tagg muy aw sas ci daara ji na la jaral lu nekk bu demee ba àpp ba jot mbaa mu jege te yoruloo ci def na la jaral jaay lenn ci sa alal def ko ci foofu la ab murit war a toll kon ñu ngi ci soññe bu baax laajin wi ne ni ñu doon laajee ziar bi lañ koy laaje mooy zone yi ñu daggoon zone A zone B ba fa mu yem kenn ku nekk zone bi nga nekk xam nga ko am na jëriñ duñ tabb ca zone boobee ngir muy laaj addiye ji koo xam ne dégg nga mu tabbal ab audio ci sa groupe zone di laaj addiye na nga xam ne lii la lay laaj ñu góorgóorlu ci nag ba kenn koo xam ne bokk nga ci daara Dakar bul des ginnaaw ndax dañoo xayma li ñu am ci carte de membre nu mu toll ñu xayma ne bu gën a joxee nangam dina mat kon loolu ñu ngi ciy soññee bu baax a baax xam naa information yi des na ginnaaw dañuy jox sëñ xaadim mu wéyal liggéey bi ci wàllu waxtaan ni ñu ko baaxoo defee bu ñu tollee fii ci soññante ci diine ñu teewlu ndax waxtaan moom teewlu gi moo ci am solo kon ñu ngi soññ ñëpp ñu teewlu bu baax a baax bisimilah. sëriñ bi de sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas liggéey